barki démb dong waru fee romb ñi sos APR jur ko nàmpal ko tette ko waral El Hadji Mansour Ndiaye naan teg candidature am ci suuf moom Abdoulaye Daouda Diallo tekkiwul ne lépp dina nooy ci amadu Ba réew mi quotidien wëlbatiku naan ñu Tamba moom mën naa nooy ci amadu Ba ndax ñañu fa fal ñépp daanaka ci ginnaawam lañu fas yéenee topp te ña ngay woo ña fipp ca benn Bokk Yaakaar ñu ñëw topp ci amadu Ba amadu Ba mooma ma ngay gàmmu gàmmub campagne bu sukkandikoo ci le quotidien mi dellu si ci tukki gam amal démb ci këru diine yu baree bari amadou ba it sumb na ay liggéey yu bari ci këru diine yooya waaye demam googa ca tiwaawan l'info daf caa gis kumba am nday ak kumba amul nday yéene kaay bi nee na moom candidat wu bennoo bi dañ koo xàllal yoon bi fu ko neex jaar booba jamono ña ngay bundu xataal bugaan gay dani ak Malick Gakou yéene kaay bi di fàttali itam ne noona lanu fi defoon maam booy jaawoo keroog ba mu ne candidat lay doon ci élection bi nu dëkmal gontu dem ca stade Abdoulaye Wade bu jam ñaajoo ñu tere ko faa dugg waa ne ko du dëgg du yoon kumba am nday ak kumba amul mooy dox ci mim réew yéene bi di ñu xamalit ne Bougane Gueye Dany démb cortège am dañu kaa bloqué te moo ne booba jamono Amadou Ba ma ngay daagu ndànk wutali Tiwaawan demam googa ca Tiwaawan Sud Quotidien daf ko caa gis mu sol mbubbum président xaar lii Quotidien na ne kaaraange gu mat sëkk danañu ko indi ci gàmmu gi booba jamono Macky Sall mel ni ku koy gàmmul ca Amérique ndax lii Quotidien nee na Macky mooma xàllal na yoon ki ko war a wuutu ci réewum Sénégal sàkku ca ñay liggéey ak sunum réew ñu dalal ko ni ñu ko dalalee woon moom Macky Sall ne yi sonko yi danoo xajamal cereem njeextalu nguuram gi daal yéeni kaay bi na ne dañu ko sabote joxoñ yuuxoo yenu ko yuuxoo ca New York ak njeexital yi mu mën a am ci démocratie bu Sénégal Direct News feelu ko ca loola ne ko du amoo leen fatt ci Sénégal moom Macky Sall ba mënunoo wax yéeni kaay bi ne loola waral opposant yi yóbbu xeex ba ca bitim réew xeex bi dox diggante yeewi askan week Khalifa sàll les échos ñu naan booba jamono jeexagot ndax moom Khalifa ak Moussa dañu leen a seppi tegee ne conférence des leaders dañoo ubbi beneen groupe WhatsApp wéyal seeni réunion am na sax ndaje mu nuy waaj ak ambassadeur yu union européenne buñ sukkandikoo ci les échos yéene kaay bi it mag ñuy yeggee ne cortège Malick Gakou démb ay gaz lacrymogène la ñu ko sànni ca Richard Toll la xew Richard Toll googa ak yoonu xosantoo beeg Bougane Gueye Dany le témoin la mu ca jàpp mooy préfet policier ak gendarme yi mënees na leen a jàppee ay farandoowu bennoo bennoo mooma yi ak wallu Sud Quotidien nee na ñoo ngi ci danger bu mag a mag ndax ubbiteeg session assemblée nationale bii nu dëkkmal ku mayuwul du sedd ci yile coalition yéene kaay groupe Sud bi ne la ko ko waral mooy coowal candidature yëngal daanaka coalition yépp réew mi quotidien dinu yeggee ay leeralu Cheikh Thioro Mbacké ci coowal plan B bi yëngal Pastef moom député bi ne Guy Marius Sagna du plan B tey du ko ëllëg tournée ya muy def ca bitim réew nag lu jaadu la waaye tekkiwul ne moom la Pastef nar a tànn ngir mu wuutu Ousmane Sonko Ousmane Sonko a nag mooy kenn ki mën a janook système bi fi ne tey kàdduy docteur Cheikh Tidiane Dièye la yu mu yëkkati ci yor yor bi ma ngay xamle ca booba fitnaal opposant yi ngir noppiloo leen noppiloo itam journaliste yi lank jaay seen ngor ngor gi ci Ousmane Sonko jikkoom yu rafet fitam ak bëgg réewam docteur Cheikh Tidiane Dieye nee na moo waral mu teg candidature am ca suuf topp ci ginnaaw meerub Ziguinchor bi coordonnateur F24 Mamadou Mbodj ci boobale yéenekaay ma ngay ñaawlu dictature bunduxataal ak fitnaal gi nguurug Macky Sall nekkeek askan wu Sénégal ki ñu bunduxataal dëgg kay mooy Youssou Ndour ma gaay Sonko ya yuuxoo démb ca Paris ba xamatul lu muy def ba la gaa sonko yi sonkorisé ba mu saf-sàpp yuuxoo yuusu nduur ba daanaka la muy way kenn déggatu ko vox populi ne waaye yuusu woneeti na bari pexem de ndax ba gaa yi tàmbale yuuxoo micro ba la leen dékk ñu yuuxu ba doyal dal di mujjee jàll ci leneen ñu jàll ci leneen ak vox populi mi ñu yëgal ne juróom benn bakkan ñoo mujjee rot ci gaz bi explosé woon ci Derklé waral njiitu réew mi Macky Sall di jaale ci biléb yéenekaay njabootu ñi faatu source a bi ci explosion ma ngay téléphone portable moo jur jéeye ji faat juróom benn nit Marie Gueye ma faatu ca Ngor ana lu ko faat wiy laaj la yéenekaay bi di Vox Populi samp ne ñu ñaari tontu nag lan ciy joxe waaye autopsie lañuy xaar ngir mu indi ciy leeral libération ni ko kaay ma wax la li tukkee ca boobale autopsie buñ sukkandikoo ci yéenekaay bi amul benn gaañu-gaañu bu ñu nemmeeku ci yaramu Marie Gueye docteur ba ko càmbar la mu gis mooy gaañu-gaañu ak nàcc wu amee ci biiram moom Marie Gueye Yolande Sila moom lëkkaloo di def ñaawteef ak roppat ay koppar jigéen bi am ñaar fukki at ak juróom-ñaar kompolo la def ak Saïd Hamza ngir bëggoon a jël ci Mohamed Saba ñaari million ci xaalisu CFA waaye gendarmerie daa mujjee kalaateel dil ba Yolande ak Saïd ñu mujjee leen a teg loxo na grip bi tegee tànk ca banlieue bu Ndakaaru la Soleil nee na moo jaaxal fajkat yi waaye laas moom li ko jaaxal mooy jee yi hypertension di def ci réew mi yéeni kaay bi duñu yeggee xayma yu raglu jamono ji réew mi quotidien xayma liggéey yi ñeel projet GTA ci juróom fukk ak juróom ci téeméer boo jël Mbaye génnee ngir dem Nicaragua waaye dañu ko mujjee wàññi xale bu góor bi nettali fukki fan ak juróom benn yi mu def diggante Nicaragua États-Unis ak ñetti weer yi mu def ci camp de rétention ci biir bés bi le jour lata muy dikk ci ne ko way juram yi teertoo ca Mbàkke ca Marseille Habib Beye xelam nekkul ci poste entraîneur buñ sukkandikoo ci réew mi quotidien stade ne ko Marseille mooma Amsterdam la jëm tey waaye du ci ànd ak entraîneur am Eliman doomu Sénégal bi ñu bare ngi seenu ci moom tey mu fay lakkuk Marseille gi Bayern booba jamono da gannaaw jongante wu metti ca Ligue des champions la tribune sport yeggeen ko yemook sunu lamb di laaj ndax Ama Baldé buy feete fukki atam ak juróom ci lamb ji dana fekk mu doon buuru lamb ji yéenekaay bi fàttali ni doomu Fàllaay Baldé bi weeru novembre atum 2008 la sampo ndëndam wulli mel ni ku koy aartu naan ko Modou mi ma gis du neex a daan waaye li ci kanam raw li gët yendu leen ak jàmm. Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec